waaw ñu ngi ñu ngi rafetlu trop euh, tey ji ñëw président de la république Macky Sall ci dëkk bi moo war a fi def ñeenti fan ba juróomi fan ndax dina si tey ci 5 heures bu ñu julee tàkkusaan ba pare mais dina fi nekk ak ñun ba ajjuma ba bu jullee ajjuma julli ajjuma ba pare mu soog a dem ndax jàkk ji moom moo ko inauguré woon tey ji bu dellusiwaatee fii di ñëw di bëgg nekk ak ñun juróomi fan ñun loolu dañ koy rafetlu parce que aussi président de la république musu ko def ci àddina depuis Senghor ba tey benn président de la république musul ñëw ci benn dëkk nag ci li ma xam ci politique amul fenn fu président de la république dem ci Sénégal fii ci benn dëkk fa ñeenti fan ba juróomi fan donc bu ko defee Tamba fii ñun dañuy naan léegi ñun kenn fàtteetuñu bu ñu fàtte woon mais président fàtteliku nañu bëgg na Tamba te waa Tamba tamit bëgg nañ président de la République ñun nag bëgg nag ñëpp génn teeru ko te incha allah président dina gis ne tambane nañu mom la jigen ñi dinañ ci dinañ ci gëna dinañ ci gëna gëna gën ndax ministre de la femme madame Fatou Diané dafa wara ñu momi tamit mercredi inshallah def manifestation bo xamanteni fi ci euh, euh terrain gaal bi incha bëgg nañ jigen ñi te incha allah dina génn parce que indaale ay financement te du financement yu ndaw ay matériel pour région Tamba yëpp quatre départements yi ku ci nekk rek am nga ci sa matériel kon loolu dañ koy sant ba bu baax di ko gërëm ci loolu te day wax ne ne euh, madame la ministre jaar jaar na Tamba ndax jàngee na Tamba dëkk Diourbel kon ku jàngee Tamba dëkk Diourbel xam nga lan mooy région yi ni ñu mel du mën a dëkk kaw parce que président neena na avec kii territorial bi équité territoriale bi dëkk kaw amatul ñëpp ay dëkk Sénégal lañu kon xam na li Tamba soxla ku fi jaar rek jàng fi rek war nga xam ne Tamba soxla moo tax mu njëkkee fi te li may li may bëgg a wax muy neen euh, dañuy dem ci 31 décembre di war ñëw ci at bu bees président de la république bu fekkente ne le 31 décembre dafa war a jaakaarloo ak askan bi le 30 mu jóge fi kon il vient se ressourcer bu fi jógee rek la muy jaakaarloo ak askan bi rek xam naa ne dina doon loo xamante ne lu am njëriñ askan bi la ñi nag madame la ministre nag ñi wax na jigéen ñëpp nañu génn parce que ñu dañoo woote fii réunion jigéen ñëpp ndax ministre à la femme du ministre APR ministre jigéen ñi ñëpp la ministre de la la kon bu ñëwee ñu ànd ak moom incha allah yiir ko mu joxe financement yi joxe matériel yi ñu yëkk yëkkati génn koo gunge encore ak geneen ak yeneen yi mu war def ndax démb rek Koupantoum joxe na fa ay kii panneaux yoo xamante ne pour waa Goudiri parce que ñoom pour ñu charger seen portable yi fa que ñu jóge ci belee wala beneen dëkk. ba ñoo bëgg guddi de pour charger ko bu jox leen ñaari panneau boo xamante ne fu ñu koy teg benn panneau benn bi rek benn portable rek 30 minutes mu chargé ko kon loolu rek dara la ndax ku la jox ndékki nag jox la añ bu la digee rek dina ko def. boo génnee sax xool banderole yi ñu takk rek ñun jigéen ñi moom ñun amuñu keneen président la ñu am ndax moo ñu bëgg ñun 2024 amuñu beneen plan kuy xalaat naan waaw dul président Macky kii leen déedéet président Macky Sall amatul choix bi ñun ñoo ko tànn. parce que du moom mooy posé candidature mais ñun ñoo koy imposé candidature 2024 bi te incha allahu rabi da ciy jàll mu toogaat fii liggéeyaat Sénégal comme ni mu waree.